jërë ngeen jëf sëñ Mamour ak sëñ Badara ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi bu baax di sant suñu waajur yëpp di sant suñu maam Cheikh Ibrahima di sant sëñ Mourou Sax Fall ak sëñ Assane Fall mi nga xam ne moo nu ak woon ak sëñ te boobu ñu ay tuut tànk yu ndaw ñëwoon fi moom fekk fii Touba sëñ bi jébbal nu ko sëñ Assane maa ko ne wax Assane Fa Ndiaye doomi sëñ Bàkka Fall nun ñoo àndoon ñëwoon fi bon nag moom moo fi teg mag waaye waxtu mbiri waxtu marax lañ fi jébbalu ci moom comme ni ñu waxee woon rek ku ñuy wax taalib bi ñuy wax Cheikh Ndiaye ci jëwriñ la woon moom sax daari sëñ bu sa sëfoor fa la ne woon moo ñëwoon ci teen boobu seet na boobu ci Modou Fati moom seet na boobu moom la ñuy wax Modou Fati góor yi ko yoroon bàyyi Modou Fati ci njaay moo yoroon seet na bi moo tax te seetal na yi boo bari lool ci Touba moo tax ñu doon ko dàkkantele Baye Modou Faty ndax boo seetee kër sëñ Fallu na ngi fi woon ci penku boo seetee féetee kër sëñ Daam Diop féetee Daam Dramé ab seetal na nga fi woon boo seetee itam fi féetee kër sëñ Mbàkke Madina ab seetal na ngi fi woon boo xoolee fi féetee bëj gànnaar ci jéen ci diggante kër sëñ Saaliwu ak kër sëñ Murtala ab seetal na ngi fi woon seetal yi dafa bari woon Touba boobu ñu doon ko dàkkantele nag moom Modou Fati waaw waaye Modou Fati Ndiaye waaye nag seetane boobu nag bati na daa bokk loolu yooyu ndax yii boobu ndoxum Daaru Marnaan moo cay dem waaye seetane bii Modou Fati yor boobu jaaji Fall la boobu sëñ Modou Moustapha Fall sun baay moo ko bënnoon ba tey mi ngi ci kër sëñ Touba lépp ci jumaa ji moo ko tabax waaw boobu day ndox mu neex nga xam ne booba ndox mu neex jax bi na Touba ñoo tax nag seetane boobu nag boobu moo daan xel ndox mu neex ñu bari ci lañ daan roote si luñ bëggee ndox mu neex boo foofu la Cheikh Ndiaye taxaw sëñ bi woo ko ni seetalee bi ku ne ci seetalnde bi daan am dong yi fi root si ñu fekk Cheikh Ndiaye Cheikh Ndiaye moomee nag moom la sëñ toll woo mu daal ni booleeg nun ñu yóbbu ñu allié allié sax léegi sëñ ah ma kii Ndambe ñëw na fi léegi di ma wax di ma ci wax sax ay wax ni ma sëñ Cheikh Jëmb nee na yow da ngaa bokkoon ci newoon ca daara ji wax dat ah Cheikh Ndambe naa ko fu dat ne mu naan ko dat de ci daara yi sëñ Fallou bi mu ñëwee bi ma ko waxee ma ne ko dat mooy allié moom moom boobu mooy allié allié boobu moom la wax dat dafa dëgëroon lool mhm. boo dat lañ koy wax ma ne ko foofu dat gooy foofee nag fa la ñu yóbbu nun ñii maa Assane Fall Ndiaye fa lañ nekk foofee daal suñ Fall itam rek bari woon na lool ndax nun ñi ku ñuy wax Baye Dame Ndiaye boo dañ daan boole jàng ak tërbiye buñ tolloo ci ñiy ndaw dañ noo beraloon daara joo xam ne am kaa nga fu nu yor dinu jàngal waaye teewu itam dañuy bay comme ni mag ñi béyee nag saa boo xamante taw na it dañuy bàyyi liñ doon def lépp jëm foofa sëñ Fallou nag moom comme ni ñu ko waxee rek sëñ bi nun daal moo nu yar moom dong lañ xam ñun xamuñu kenn man sama baay bi ma jur sax xamuma ko sëñ Asan laa xam ak sëñ Fallu ci diggante boobu laa yaroo man toujours loolu laay wax waaw ndax sëñ Fallu Mbàkke daal moom ah bëggoon nun nag lool ndax ndax dañuy doon doon gone it fonkoon nanu nag lool ngir sun maam Cheikh Ibra fonkoon nanu lool tam ngir sun waajur yi nga xam ne ñoo nu fi indi ndax man sax toujours léeg damay wax ni man sëñ Fallu nekk nañu ay at moom dafa defoon ne boobu suñ asan moom a jur man waaw benn bis laa too laa ñëw fi moom ak timis sëñ Ousmane bu saa ngi toog ba ma ñëwee ñu yónni ma ci moom ma ñëw wax ko ba nag bay dellu moo ko wane gannaaw mu daal ni si Ousmane xool moom da ngóor si bu la wane gannaaw daal da nga def ne sëñ Mourou Moustapha la ko jur loolu la loolu la suñ Fall wax sëñ Fall ni ko ah déet sëñ ah Ousmane bu sa ni ko de moom sëñ Fallou si sëñ Moustapha Fallou ko jur di mu ne ah nga ni waay ñu waaw ah, mu ne ko déedéet daa fi indi waaye moom sëñ sëñ Moustapha ko la ma daal di woo damay woo ma ci kawam nii def tap tap naa ma yow ma ni waaw waaw keroog la daal xam nag daal may téyen téyin woo xam ne wii nag man am naa yëg lu wér ni xam naa ne sama baay moom sëñ Fall fonkoon na ko lool nag moom waaye nag loolu lépp nag sant rek. waaw suñ Fallou Mbacké nag moom. loolu moom lu ci waaye wax ci moom rek. moom des na. dër ki dem sax dégg naa ku ci wax ni sëñ bi daa lugul jaan fi barab. waaye man de man maa toog. kenn waxuma ci Touba Bogo. am koo xam daan da ko matte Daaru Minam foofu la Daaru Minam ak Touba Bogo mat na juróom-ñaari kilomètre foofu la sëñ sëñ sëñ Abdou Karim mii doomam ji foofu moo yor daara ji fii ni léegi foofu la kooko dawee ba ñëw Touba boog fekk ma fa di daw di wër baraag ba ma génn ni ko looy la mu ne ma jaan dama mat ma ne ko fan la la matte mu ne ca tool yi Daaru Minam ma ne ko ah kon demal wàcc na mu ne ma déedéet loolu moom sëñ bi daal dimbali ma rek ma daal bu sëñ mënee dégg moo ma gënal ma daal ñëw fab téléphone bi woo ko sëñ Fallou billaay ak yàlla moo fanaan ba ma ko woo mu ma anam ma ne ko mi ngi toog mun ma xamal laa teg ko ci tànk bi waay ma ko ci teg ko ci mu di ko mocc boo ko tisli ma ne ko wàcc na de mu ne ma waaw boo boo demeti foofu sax ci néeg bi foofu rek ci ci ci lal boobu rek am na am na turwaal bu fa ne boo xam ne ay mbax naa nga fa bu dee koo xam ne da koo defee lu mel nii nag fabal mbax ne mi sol ko solal ko ko mbaa mu dem foofu muy jullee rek dana wàcc loolu moom kenn lu waxu ma ko maaj teg sans bopp fi mu ne bana sax samay taalibe yoo xam ne dañuy def daayira am na ñu ne France di ko fa def ak Espagne ak feneen feneen buñ dajee dañuy wax ni ñaanal na ma toog fii di ñaan ni man nag ni ma itam maa ngi jàpp ci sëñ Fallu jaan dem wàcce woon te nekk Tuuba hmm. booba sama ñaan yi fofu la ko fofu la ko fofu la ah! ko japp rek waaw na mo man lool dal te moma ma yar hmm. mayit fu nit tollu rek foo ma rek suma nexe man na joggi fofu ba lama bëgg ma def fi ma toog ngir mom defu mako dal na lumay mom ngir mom, ci barkem rek hmm. wa ci barkem la ko def lolou mom mom mom mom xuna te ko beggol na nak jamono bi fi bayiko de bo ah, metti na ndax man booba <coughs> Touba boobu la ma fekk dama ñëw nag yàlla dogal ma ñëw Touba keroog dugg naa sax ba biir kër gi waaye kër gi boo fi duggee yooyu jamono nag day def saa bu agsee day mel ni kër gi wàccaay yu nekk tax na mbooleem fu foo <coughs> foo fu ab ko restaurant dañ koo sott dañ koo muuroo ki ay sér mm-hmm. ay ay ay piis lañ wut mm-hmm. warale ko ko nii fa mu ne mm-hmm. mënatoo koo séenu yow waaw noonu lañ ko defoon boobu na xam naa mi ngi ci waajtaay wi waaye nag it man daanaa egg ba <coughs> mu tëdd waaw am na fi bis boo xam ne bii am na bis boo xam ne bii sëñ sëñ Aliou Fall ba Eli Fall moom mii jàng damaa ñëw fi sëñ bi mu ne ma dama lool ma sa baay Eli sa ne ko saa bu ñëwatee ne wéeru ci permis di jàng boobu sëñ baa ngi tawat ji waaw ma laa dem woyu ko bu ñëw ba ci moom mu ne ma nee ko ne wéeru fii nga xam ne foofu la wéeru di jàng ba ni sëñ Fall nelawee hmm. waaw nelaw ga yi tamit yalla bi doon mu dimbali ba man Touba la ma fek waaw ndax keroog duguna ci biir kër gi waye nak nima ma gis dalul sama xel waye nak ma tok tok ba dee ban julli timis bay julli gee non goné ni àndoon man len man dal amna luma jaaxal lol te tay ji xamna luma waye nañu tok fi ci tetane Madou fatibi nañ tok ci buntu kër bi ba xam ñu tok fa tok fa toog fa toog fa ba yàgg Baye Thierno Fall génn yor ay peel ak pikk waaw man noonu loolu noonu lañ ko gisee ñun xamuñu woon dara waaye nag foofu loola nag man bii man loola man man nii maa toog foofu man ba ñu loob maag pik yeeg peel yi Baye Thierno Fall daan ana ñu toog fii ñu ñu ko noonu ñëwee mu ni kaay leen ñu ñëw ñu ànd moom ba foofu ñu ko def waaw ñu fab tàmbali. di di di di ko waajal. waaw noonu. fàttaliwul ne lan la mujjee wax ak yéen ci daara ji. waaw noonu li mu daara ji mooy soññiwaat nu ci liggéey bu baax. soññiwaat ci yar bi soññiwaat taalibe gi xamal nu itam ni booba gone yi da ci am ñoo xam ne ñii dañuy sol ay naawali saako. ak di sol yu tilim daal. soññoon nañu ci noonu. lii ngeen jub lii ngeen def nii lu ngeen ci jublu. man nag boobu wax dëgg yàlla yële li may sol moom du doon saagu man naka jekk nag moom wax dëgg itam nekkoon naa ci daara ji waaye nag yére yi ma yor bu doon benn dama koy fóot ba mu seet ma di ko sol rek waaw booba sax fekk na ma tax sax montal waaw montal boobu keroog booba ca la moom laa tekki joxe ñu def ko ci yalbaan ñu yalbaan doon ko ko siyaaree keroog lay wax di ci montal bi ni ku joxe lii Assane niveau ab Assis mi ko joxe mu ni ma foo ko jëlee. Euh, fekk boobu montre bi ki koy jaay. juróomi téeméer la ko doon jaayee. te fekk boobu moom mu amel na ma. xaw ma bi nag ñeent fukk. xaw ma ñaata bi juróom fukk. yooyu daal du ko sori. nga xam léegi dama ko war a mottali moom. jël montre bi man. ba ma nii di ko xalaat. bi ma siggee wax mun ma noppi laay xam naa ko. moom sëñ Fall daal mi tontu ne ma noppil xam naa ko. dal sàmm nak di di nu nak nag ci nak ni ngeen defé ni ngeen solo ni ngi ni wax ba kii ba day àgg ci ni <coughs> dee leen sol ay sér sangu bo set seen kawar yi ko jar di diw di ko di solu ay yéere ba set dal ni li nu soxla de fi la ne nekul ci col nekul ci dof doflu nekul ci tilim nekul soli sagal li ñu soxla mooy xol bi li ñu soxla bu ñëwee nañ ko ci fekk. daal li wax itam nii ah nen di naan nit nangeen ko moyu ndax ginaar bu dee nen di naan du ami cuuj loolu sëñ Fallu wax noonu ko nun ñii boobu noonu ci daara ji waaw mu ni ganaar su dee nen naan du ami cuuj loolee bokkoon na ci ah, li mu nu dénkoon waaw naka jëkki tamit bu na saan ruuj ba setalit ba bëgg a jublu ci nawet it jamono boobu ñu ngi ci liggéey jumaa ji dëgg dañuy mhm. dajale ñépp fu dongab tër bi yene ñu ne bu sëñ bi nee na bu julee timis ba noppi nan daje barab sàngam bu ñëwee la muy njëkk a wax mooy ah dama leen di soññaa ci liggéey bi kuy liggéeyal sëñ Tuubaa nag waroo xiif waroo mar daara ju ne dañ leen jox dund bu doy ba bu ne xam na ñu peese ko xam ni nangam lañ lay jox daal ni du ngeen yalwaani kuy liggéeyal sëñ Tuubaa doo yalwaan doo sali sagar waaw waaw daal nag li ngeen di liggéey bi mel leen ci seereel mooy bu fekkee li di bay benn dërëm dinaa ko jëme fenn fu dul jumaa ji lu ngeen ji yàlla mel ni xorom da ko daan waat waaw boo nawet daawut gàntu ndax day wax ni boobu li ngeen liggéey rek ci jumaa ji laa ko jëmee waaw fu ma ko jëmee fenn fu dul foofa ma nar ko lii ngeen liggéey yàlla dara na mel ne xorom rek bu ngeen jiyee na mel ni xorom waaye waaw nga xam ni keroog gore yëpp dañuy daanu ñuy xaaj ni ko na daal taw léegi ñu xëy hmm? waaw booba noonu lañ daal liggéeyee waxtu bu ne da leen jaaj xamal nu fi ñu jëm xamal nu liggéey bi ak fi mu ko jëmee mooy sëñ Touba liggéey bi rek jumaa ji rek dañ fa moom jumaa ji la soxla woon hmm. waaw amutoon amutoon lenn lu may foofu rekk bi mu eggee rek lañ tàmbali tax yu bari ñu fi ni ko fi def waaye moom gis nga fi mu dëkkoon ay baraag ay néegi ñax ak yooyu donc moom ci la dëkkoon moom mus la dëkk ci tabax déedéet waaw mus ko mus see dëkk moom naka jekk ci loolu rek la nekkoon waaw loolu loolu nag boobu noo ngi noo ngi allié ba niñ fa jógee ñëw dindi waaw ba ni jumaa ji eggeet ak soor bi ni mu ko tuddee sun maam Cheikh Ibra Fall itam loolu bépp itam noo nga foofoon booboon waaw moom it noonu la demee woon. waaw ñu sant nag bu baax di ko sant bu baax di ñaan nag ñu fi nekk répp ñu ko dal sëñ Muntaxa waaw mii nga xam ne moo fi nekkal sëñ Touba yàlla na fi yàgg lool te wér ak sëñ Abo mii doom sëñ Fallu ak sëñ Cheikh Jëm mii nga xam ne mooy suñ kilifa ñun ñëpp ak sëñ Amdi Xadi mii ak njabootu maam Cheikh gépp boobu ñu kenn ëtt yëpp yi maam Cheikh Fall jur nun moom bët ki démb itam nii nu def tudde nu bis bii sunu maam Cheikh Ibra loolu sunu xool seet na ci guy sant nañ ci bu baax bég nañ ci lool ndax nag sëñ Fallu moom te man fal yooyu wóor na yàlla bi ma tiim ni damaa tëdd fii fajar ba fajar nodd gu njëkk ma dégg ñuy nodd di nodd di nodd ma taxaw sama xel ni ci soor bi ma ne ah seer bii de ñu mu ne ci digg jumaa ji xam ne ëppal laar yëpp loolu ngay dégg yëpp ci moom la jàpp ba ne ashadu an laa ilaaha illallah damaa daanu fi suuf ci laal bi laa di fi suuf dal waaw waaw kenn xamul biram da koy seet te moom du julli du woor mhm. te fu ne ashadu an laa ilaaha illallah ku ko faay di ko dégg ci dëkk bi mhm. la koy jottali ci moom la jàpp moom waaw keroog loola moom fan yii daal tuddeeti ko bis biiti waaw man ni sant rek ñu sant señ Fall nag wér ndax nun moo nu yar nun moom rek lañ xam fii ni dal sëñ Fall Mbàkke moom kuñ koy tudd tudd rek dañ leen nax dañu leen taxawut waaw waaw nag waaw moom noonu la meloon moom dong lañ yaakaar ne moom rek lañ gëm nag ndax nun moo nu yar de ban lu ma wax lu bari loo xam ne ko wax nag moom déedéet loolu lu ma ko nettali waaye maa moom ak yàlla képp wax na ma ba tey ndax daanaa toog moom diggante tisbaar ak takkusaan maa ngi moom képp wala xasin maa moom képp képp képp waaw mu di ma woo di ma yónni may dem di ñëw maa ngi moom ba ni àllaa ko ba takkusaan ma génnal ko tablier bi mu toog ma fa satala gi di ko def xel ku muy jàpp bu jàppee ma noppi daal di dem julli man ma del sama dem ñu daal di woo nit ñi soog a di ñëw ci moom. ñoo sant loolu nag maa ngi sant yàlla bu baax sama sama baay di ci sant itam suñu asan mi nga xam ne moom fa yóbbu woon waaw di sant nag suñuy waajur yëpp itam xëy na dañu koo liggéeyal rek ndax man dong nekk mu nag waaye sëñ nag moo mel noonu kenn ku ci ne na fu mu jaar yow foo xam ni loolu moom yàgg yaa moom ak yàlla rek la di sant itam nag sama bokki taalib yi ma nekkal te yàlla boole ma ak ñoom ak doom yi ak soxna yi ak taalib yi yëpp ñu ne ci biir réew mi bitim réew yëpp ñoo ngi leen sant bu baax ndax ñoo ngi ànd ak man ci liggéey bi waaw bu dee addiya ñi ngi ci bu dee koor ñi ngi ci bu dee tabaski ñi ngi ci bu dee màggal ñi ngi ci bu dee gàmb ñi ngi ci te juróomi waxtu yooyu nag nun moom lañ am nun nun Baay Faal juróomi waxtu yooyu mooy suñ juróom waxtu julli juróom mooy addiya mooy ndogu mooy tabaski mooy màggal gi mooy gàmb gi loolu mooy suñ juróomi waxtu julli juróom nun fu mu nu fekk rek waxtu la woo xam ne ci noonu moom dañ ko daal dañ si daal jiwul ba mat mm. ah, ak yeneen liggéey yi nga xam nag moom boo ko seetee mooy xëy na mooy liggéey mooy julli naafi lay yenn ji mooy lii lu mel ni lii nuy defloo fii na ci université yeeg diñu leen nag diñu tabaxloo fii diñu defloo waaye loolu dafa bukkut ak addi yi sax moom mm. def ko du nga def nga joxe ko mm. waaw loolu moo tax nun ñëpp itam nañ ci góorgóorlu nag bu baax a baax a baax ci yoon rek mo moo kii dinaa leen déglu lool nag ñu ngi xoromul lool. waaw jërë ngeen jëf. yàlla na aaju yëpp faju yàlla nañu fi teewaat déwén. déwén ndax ren fuuf. barke sëñ Touba. barke sunu maam Cheikh Ibra Fall. barke El Hadj Fallou Mbacké. jërë ngeen jëf. moom daal ñu ngi bu baax rek. lu am ci moom rek yàlla nañu ko bokk